safayta yaa baaqi hayaati lil jinaan tayyabta umriya atabta lil janaan fajatani fi bamsasin bima maha adha aduwi maakirin qad jamaha radatta ma qasadahu ilayhi wa kulla man aanahu alayhi jamaha maakiran wa rudda ma arad lahu biman wala wa ma naalal murad cantu bopp ndax jox nañ la ndigal dëgg la ci biir yoon wi nga bokk waaye fi nga nekk ñëpp nga fa nekkal waaye wane nga ci sa taxawaay yaa ñu ngi ko siqal ñépp ba li am solo mooy yitte ak dogu bëgg def dara gis nañ ne lépp nag yaa ngi ko doon taxawal sa bopp ci ndigalam moom ba mboolem loo lu ci doon sa kàttan wala nga man ko rek defe nga ko ñu ko bëggee woon kon sëriñ bi nee ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaaral di leen soññ yit nag ci li ci kanam ndax 2019 waxoon naa ko ci CRD màggal Tuuba ne leen buñ doxaatee ñaari at màggal gi dana dugg ci jamono ju xat ndax nawet bi booba xamuñu woon ne wéer digg dana am kon ñaari jafe-jafe am na ci kon sumb wi nga xam ne président bi mu ñëwee ci sëriñ bi wax na ko ko ndax mën la fa sëriñ bi njëkkoon yónnee mën na ñaari at ba yàlla def mu doogu woon ci def ko far xam ngeen li xew ci réew mi ñu nangul ko ko it waaye ren ji ñëpp gis nañ xam ne taataay bari na ci dëkk bi te dëkk bi dafa rëy kon engagement yi nga xam ne yéene doo ko fee def ren ji ñu ngi leen ci soññi ngir bëgg ñu ko teg ci seen loxo yi ñu def ci yitte ak jom ak pësef fexe ba nañ ko war a defee ak nañ leen ko digalee ñu toppee noonu ba loolu àgg ndax jàpp naa ne bi xew-xew bi amee ba sëriñ bi yónni ma ba ma jox ko yow nga jox ko moom li ngeen ci defee ko néew ci gi buñ ko tegee ci loxo yi ñu farloo noonu kon bu nëgëlisee déwén dana fekk lu bari saafaraw ci kon nag ñuy jox ndigal it nañu am farlu ci la leen seen kilifa sant ndax looloo koy jox ndam sëriñ bi nag ni mu ko waxee rek nee na li na ci kanamam di sumb bi gën a rëy ci moom mooy université bi waaye bu université bi jeexee jàmm li ko gën a ñor ci ay yitteem mooy ñaari ndox yi ndox mu ñuy jëfandikoo ci biir dëkk bi ndax ñëpp xam nañ ne jafe na ci dëkk bi bu ñaareel bi mooy ndox mu ñu wal di dugg ci biir kër yi ñaar yooyu nag mooy itte yi gën a ñor sëñ bi ginnaaw université bi loola nag insha allah bu ànd ak dogalub yàlla mën na am balaa yàgg rek danañ ci jëm jublu ci kon loolu waru waru garu waru la xam na ni ñoom itam ñoom ca def nañ ci seeni plan ba insha allah danañ ci jëm waaye yoonu murid nag ñu ne ñëpp maase ci xam bam sosoo ba nëgëni musuñoo jë musuñoo rek wàcc seen loxo lépp lu leen mas nit mas di dimbalee ca naka jekk ba la gën dañ leen cee fekk te loolu mel si see joxe firnde yu bëri firnde yu bëri tàmbalee ko ci jumaa njaarim ba ko Sëriñ Tuubaa santaane ak lam ca waxoon ne maa ngi leen di digal digal loo xam ne fu waaye jëm loo ko fa yóbbaale wax ju gudd la waaye dama ci tënk lu gàtt rek mooy lépp loo xam ne bëggati ngeen ko walla ngeen sumbati ko rawatina lu mel ne néegu yàlla bii na ngeen ci def góor góorgóorlu seen kéemtalaay kàttan def ci la ngeen mën ak la ngeen mënut lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam gu sell te foo ca seen kàttan ngeen yem ngeen toog fa sëy ci allahu ba dama suy yusoon te rikki nag waaye maa ngi leen wattandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seeni aaju it daa leen xañ seen ngor xañ leen seen jëm tilmal seen diine wax ne yett yi nag képp kum ne ko ne war ba sàmm ko képp kum nekku ceew ko ne war ngaa fexe ba wuti ko kon loolu mooy jumaa njaarim ja ginnaaw bi tam njabootam gépp ku fi mas sumb oo sumb tàmbalee ci raay bi tubaab yi bi muy autorisé ak Cheikh Mouhamadou Moustapha jumaay Tuubaa ji dañ na nañ ko ko may te xañ ko ko nañ ko ko may ndax mënuñ ko ko gàntul ndax ni yoon wi toll te mu ngi mastaa ñoom waaye nañ ko ko xañ ndax nañ ci teg condition yoo xam du ko mën mu fexe ba ànd ak taalibe yi seen jom seen yitte seen pëstéef ba mu àgg ginnaaw mi tam ak Cheikh Mouhamadou Fadel ñëw wër ay dëkk yu bare bari ngir bañ a xaar ndimbalu kenn Tuubaa Bogo Aliya mat na boobu fu bare bari lépp mu jëmee ko ci jumaa ja woo ci taalibe Sëriñ Tuubaa nanguwul sax ku yëkkati tabax ci biir dëkk bi ba def loolu àgg ginnaaw mi tam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw bi ñu dikkee moo jëkk woote milliard ak genn wàll ba mu ko waxee nit ñi dañoo wax ne seen sëriñ bi de dañoo xamut milliard nu mu toll. Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñeneen mbay mu ko gëm woo te xol itam Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñëw xam ngeen ne yàggu fi. ginnaawam itam Cheikh Saliou Mbacke ñëw ba mu dikkee. la mu ko fekkee woon ci ay daara ëpp na fukk yoo xam ne fu ci ne lu ëpp ñëpp téeméer nit ak mu sancaat xel koom mu ëpp quarante cinq mille hectares wala mu jege ko woo ci taale mu Sëriñ Tuubaa yëpp ñëpp wuy si ko ci moo jëkk-jëkk a mbay lu mat milliard ci histoire ci lu mu xam ci Sénégal somb yi somb yu rëy te mosu ko woote boo koy rek ci assainissement bi muy wax tey Serigne Saliou mooy njëkk a yëkkati xaalisam def ko ci ak yeneen somb yuñ def ci dëkk bi yëpp ci jumaa ji ba defoon ay naal yu rëy rëy ci fas yéene defar ay ci dëkk bi kon ba bàyyi fi lu fukki nangam ci ay sumbam ngir jëme ko ci Tuubaa kon ñu yomb dimbali lañu ginnaaw nitam ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw wuutu ko ci liggéey ba moom itam xam ngeen ñaari at ak nangam la fi def lu matul ñetti at waaye li mu fi jëf ci dëkk bi foo romb rek dañ ci teg sa bët ginnaaw mi tam ak Cheikh Sidi Mokhtar ñëw sumb Masaalikul Jinaan sumb liggéey jumaa Tuubaa ji àggale ko na comme ko fekkoon ci ay kilifaam ba daanaka bi ñu fi bàyyi ko tuuti moo ci desoon mu wujj boroom kon kenn ku ci ne bala fi yàlla tegee la muy gàtt gàtt la nga def mooy njëkkanteeg waxtu bi njëkkanteeg temps bi ngir def fi ndox baat bi tukki kenn du ko fàtte ndax ñoom seen yitte jëpp mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa ba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw sëriñ bi nag moom bi mu dikkee baat bi mu njëkk a wax. mooy amuñu compte suñ tubaay suñ compte luñ soxla rek lañ am doog a àgg mu fekk fi bàyyi fekk fi ay som yu rëy yu fi kilifaam nga Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi mu mottali ko yëkkati sumbu université bi nga xam ne fanweeri milliards yu tegal lu bari la te boole ko mboolem lu mu war def ci biir yoon ñu ngi ko def yàqalu ko ci dara kon loolu la Serigne Touba tàggate yoon wi yoon woowu mooy yu lënt kon nag sëriñ bi nee na li ñu njëkk def ginnaaw bu santee kilifa diine yi ci seen wuusi wu sant itam ñi jiite réew mi ci seen taxawaay bu rafet bi ñu ànd ak moom sant itam mboolem ñi nga xam ne dañu yëngutu ci wàllu politique ndax amul kenn koo xam ne ci ñoom ñëw fi feeñal yéene yéeneem ak yitteem sant ñi yëngutu ci wàllu politique te ne ci biir réew mi ba ci ambassadeur yi ñëpp dañ leen bindoon ay lettre xamal leen ba leen jéggal nañ leen ndax xam nañ ne fi waxtu toll waaye am na ci ñoo ñoo xam ne seen dogu ak seen yitte ak seen bëgg dëkk bi tax na ñu ne lépp lu ñu nekk rek dañ koy ànd ak yéen kon sëriñ bi nee na ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñëw nag ci li waral bis bii mooy bisu màggal màggal gi nag bisub sant yàlla la sant yàlla nag bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax bokk na ci maqaamatul yaqin yi la in shakartum la asidannakum waaye ni ko ministère bi waaye xam naa tey da dafa ne ko jàngalekat wala dana wa in tashkuru yardahu lakum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum foo dégg ak shukur ak kufr moo ci tekk kon ku sant yàlla rek weddi nga ko suñu borom na lu jafe moo tax mu ne alaysa allahu bi alama bi shakirin wax na it ne yamalu ala daawuda shukran kon cant ay jëf lay waaye du nekk làmmiñ bu kese am na foo ko sëriñ Tuubaa wax dinaa ci dellusiwaat sant nag ñetti xeet cant gi nga xam ne dañ koo def ci sa làmmiñ ak cant gi nga def ci sa xol ak cant gi nga def ci say cër cant gi ngay def ci sa sa làmmiñ mooy wa maa bikum min cant gi ngay def ci sa làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum cant gi nga xam ne mooy cër nag mooy i'malu aala daawuda shukran waaye nag wa qalilun min ibaadiya shakuur suñu borom xam na ne lu jafe la Sëriñ Tuubaa nag dafa dëgmal boromam laxasaayu ngir liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy bis bii tey ñu koy màggal mooy bis boo xam ne ci ku ko fàttaliku bis bu tiis la woon ndax Sëriñ Tuubaa moo ko ñaanoon suñu borom danaa ci gën si tuuti ba suñu borom may ko ko mu jug ngeen xettali xëyta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne may dem ci géej gi liimaan ak lislaam ak lixsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muqarrab kon nag lam doon wuti mooy lii ko suñu borom defal tey loola nag lépp ci ay waxam lañ koy delloo dara gënu ci wér waxi sëriñ bi sëriñ bi moo wax ne sababu haybatiha an allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawla muy daraja ju ñu am ak garab bu ñu takk ak xettali xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne wax na ne bu dematoon ci géej gi ñëpp danañ def tanasuru wala hiyaasu billahi taala te boobaa ñëpp daal dem sawara moom ci boppam àgg na ci wax ne law tanasartu la daxaltu naar wala iyaasu billahi taala moo tax daanay wax ne yoon yi nangu ne lépp ba mu des tanasur tanasur nag moo yor jikkoy tubaab yi ak yor seeru melokaan ñoom lu dul loolu rek yoon attan na ko sëriñ bi nag wax na ne li waral tukki bii mooy ca azal ba suñu borom bindagut aalamul mulk te aalamul arwaax dafa dajale gaayam yu baax yépp yu tedd yépp yëkkati lu màgg lu kawe lu rëy lu kenn xamul lu tolloon wax ne lii ana ko ko bëgg ci yéen waaye nam kawe ak nam yëkkati ko nam jafe tax na kenn ñëwut a jug ko sëriñ bi nee na nag ba ma xamee ne suñu borom wax na ko ne laa xam ne lu mën a am la yàlla suñu borom xamal ko ne ko lii de képp koo xam ne andil gëma ko danaa defal loo xam musuma ko defal kenn te wutuma ko defal kenn sëriñ bi nag ne ko wa inni alayhi la qawiyun amin attan naa ko te danaa ko wuti suñu borom dooleente moom waxante moom ay sart ne ko bu waxtu wa jotee rek da ngay yëgal sa bopp ne natt bi agsi na Sëriñ Tuubaa ci jom ji ak fiddu lépp mu dékk ko mooy samaaniya xijajan illaa qalilan juróom-ñetti at yu néew yu manqué lu néew loo xam ne moom nga suñu doon daalante moom loo xam ne lépp ci biir ay yemaanam lay nekk ñu di ko beccal di ko wax kàddu yu métti di ko reetaan di ko mbëllee lépp mu xam ne luy naqar doomu aadama ñu teg ko ko lépp mu di ko dékku wax na ne tubaab yi de li may yàgg ci seen biir musuma yokkat musuma tayal musuma saali ci seen kanam suñ borom daa leen teg moom sama lii xijata xijata illa qalilan yàlla suñu borom xamal ko ne ko ne fa in admamta asran fa min indika loolu mooy ati gànnaar yi mu liggéey la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam àndaale ndam li mu àndaale suñ borom mottali liggéey ba ca gànnaar moo tax mu wax ne man zanna zayri ribba aami aksasi mithla masiri rasa aami jaysasi tabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam ko seyru ak sisiyi si waa jasaan man li yaqaada baadu waadan la jasaan kon gànnaar suñ borom da ko xamaloon ne ko mboolem li desoon ci lu baax ci kaw suuf rek suñ borom xar na soo su tàbbal ko ci biir Sëriñ Tuubaa dem di ko jëli kon ak pay la fa doon jëli Sëriñ Tuubaa nag li gën a màgg ci ay turam mooy abdullahi wa xadimu rasulihi abdullahi nag lu nuru lu lu yomb la te lu jëfe abdullahi abdu aw mela la ci al ibadatu al ibadatu da am al ubudiyatu am al ubudatu am al ibadatu mooy li ngay jaamu yàlla ci say cër al ubudiyatu nag mooy li ngay jaamu yàlla ci sa xol al ubudatu nag mooy yëg-yëg bi ngay am nga xam ne dangay dem ba lépp nga nangu ko doo gàntu dara lépp nga jébbal ko sa borom xam ne lépp lu am yàllaa ko dogal boobaa moo tax suñu borom di wax ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun moo tax suñu borom di wax ne subhaana lasi asra bi abdihi layla min al masjid al haram loola itam moo andi fa awha ila abdihi ma awha xadimu rasul nag mooy wóotu di Sëriñ Tuubaa wuutu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf muy war a aar bindeef yépp war a xet li yépp moo tax xam ngeen ne ca fu ne nattu yu métti daanañ ko ko teg yoo xam ne doomu aadama attunu ko lépp ngir yàngu ko xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te wax na ne am xam ne bu bàyyoon mu agsi ci bindee fii rek asamaan ak suuf si day far kon lam waxoon rek bu dul bu dul bu dul koroon ak alxuraan ak xadiisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak njëriñul bindee fi masaalihul ayaali wal ibaadi maa bittu fi dunya laylatan waxida nee na kon jëmm guddi sax dama ko fanaan ci kaw suuf kon li mu doon def lépp xettali xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rek taxoon bu ko def kon nag bis mu tey bisum ndam la danaa ci jël suwaat ndax moo ko waxal boppam ndax at mu jot suñ borom doo ko ca daan nattu nattu yu diis moo tax sëriñ bi wax ne nabbahtukum maham ala kaddin bada lii qabla an ararida mu abada bu ngeen gisee suñ borom defal ko loo xam ne su ko defal kenn te dootu ko defal kenn jaar naa suñu borom foo xam ne benn jaam mosu fa jaara moom moo tax yàlla suñu borom fay ko lii mu ko fay ba jeex ba adduna tukki ba ba muy war buftu mi saa su xëy mbirum suñu Tuubaa day gën a yokku saa su xëy mbirum suñu Tuubaa day gën a jag dañ xam ne kenn gënu ci dara Sëriñ Tuubaa ba muy liggéey yi àndut ak kenn li nafsi la wax àndut ak kenn nanguwul kenn yu bare kenn gungi ko tamayoon nañ ko ko ba mu tàggoog ñaari taalibe yu tedd Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Nourou Bëgg yi da leen tënk muy lu gàtt rek nee na na seenum xel dal ndax seen sëriñ bi tàggee ko doon bu ko dégg mukk ci àdduna te kenn kenn dégg ko sëriñ bi ne fa ca liggéey bi liggéey bi tedd na ba tubaabee ci seenug mbon ak seenug mën a yàq ñu xëy xam le ne sëñ Tuubaa génn na àdduna fekk boo toog nañ lu ëpp at loo xam kenn xamatu ci sëñ dara ba ñëpp jaaxle waaye nga xam ñi àndoon ak sëñ Tuubaa seen pëstéef mu àggoon moom la sëriñ Tuubaa defoon jëwriñam tubaab yi ñëw xamal ko na ko kat sëriñ bi bàyyi ko nañu woo juróom bu tedd ba soxna Fatou Issa gis doom jamono mel na ku jaaxle ndax moom dafa amul sago ci sëñ bi tubaab yi neen da yar ba def ci moom jikkoom mu gis ko nga jaaxal di dugg di génn rek mu ne ko mbaa jàmm xew moom soxna Fatou mu ne ko neexut ah sama sëriñ bi dañoo ñëwatul ci kaw suuf mu ne bu dee lool de bay boo ndax moom de lépp lu mas wax rek dana ko def ndax neewoon na ma maa lay duggee ci sa biir bàmmeel te naa ngi dund kon wóor nga mu ngi ci kaw suuf diir bu gàtt sëriñ bi yónnee leen leetar ñu xam ne sëriñ bi ci kaw suuf ba sëriñ Tuubaa ñibbi si ba dem gànnaar ba jëm ci yéen jolof soxna Fatou Issa doon noppalu sëriñ bi dugal ko ci biir bàmmeel kon sëriñ Tuubaa lépp lu mu daale rek dana ko def sëriñ Souhaïbou Mbacké metti na ne Serigne Touba nekk na ca gànnaar wax suñu Aliou Sey na ko Aliou war na fere yépp ñëw yépp daje bu yépp dajee Serigne bi ne leen li ma leen di bëgg a wax ne yàlla suñu boom damaa xamal ne ma dana ko limal ma ci yéen ñu ne Sénégal jo ne yu nekk ga ak Jolof bu mu tudd ak bi na ko lu moom sëñ bi ne leen li ma si jublu de mooy yàlla suñu doon xamal na ma ne ma balaa ma gën si déwén danañu fekkee Sénégal ci ak ci yéen li ma ci jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu nga leen doon ni ngeen di gisee lii ni ngeen di gisee loola ci kàttanu yàlla wet fii ma ko nettalee ba booba kenn du faatu yàlla dogal ci déwén sax am na ci mel na mag moo xam ne dafa wéri doon ba ñëpp di ko xaaru yaakaar ndey faatu waaye ci kàttan yàlla bu baaxu sëñ bi dafa wéraat ba sëñ Tuubaa ñibbi si Sénégal ci ceeb jolof mu door a faatu mbirum ndox mi ñuy wax itam na ci seenum xel dal sëriñ tubaab lépp ñaan na ko suñu borom ci mat loolu foofu sëñ te lépp suñu borom may na ko ndox mi dafa am taalibe bu jóge Tuubaa sëriñ Cheikh boo ko daan nettali ñëw ci sëriñ bi njaareem sëriñ bi dafa bëggoon dëkk bi lool ku fa mas a bàyyi ko balaa wax ak kenn ki jëkk dëkk Tuubaa lay wax moo ne anaka jóge ca sama pàkk bu tedd mu daal di ñëw ne ko naka sama dëkk ba lu def kooka def ko xaw a desee xam waxin ne ko Mbàkke de dëkk ba de mu ngay ñàkkum ndox lool bopp sëriñ bi ne ko lool de dox na diir bu gàtt lu ñu metti la doon mu ne ko ah loolu de xaaral Mbàkke ku gudd fan loolu du ko fekke sëriñ bi ne ku gàtt ku gàtt fan du fekke dara ñu teg ci ay fan ci ay fan mu faatu kon nañu wóor ne nañ am yaqin ci ne ni ko Sëriñ Tuubaa bëgg dana am lu ne nag boo ab bu ci dugub kenn mënta fexe mu am waaye li Sëriñ bëgg ci dëkk bii kenn mënta tee mu am loolu la ci seen xel dal Sëriñ daa waxoon ne tubaab yi de damay njëkkante ñoom xol yi koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw koo xam ne njëkk nañu ci moom ñàkk naa ko bu faw moo tax mu andi مشروع الفوزين مطلب فوزين وفوز الإنسان في الدنيا وفوزه في الآخرة tubaab yi li ñu indi mooy li ñuy wax fexe ba def nit ñi ay ay ay ay ay tubaab gëm loo leen seen masrox yépp mooy weddi yàlla ak liberté bu ëpp ak àq doomu aadama jox woon teguñ ko ci diine ak nodd nit ñi ak fexe ba jëfandikoo néew doole yi Sëriñ Tuubaa ci wet ga li ñuy wax badil la ñu andil badil bu ngeen demee ci tubaab yéen koy file alternative badil la ñu andil mooy assiraatal mustaqim ak njub nangoo liggéey waraaxe fii kulli xalqin xaq man xalaqa ak yi ngeen di wax sax mbindeef ma gën a woyof Sëñ Tuubaa da koy jox àq am di masuux ak dimbalante moo tax mu réer duñ tumuranke duñ jaaxle lépp lu yëkkate danañ ko àggale kon Sëriñ Tuubaa na leen nob na leen bis bi ñu firndeli ci kon bis bi bisu nan la bisu puukare la danaa ko indi firnde ji ci jeexital wax ji ndax xam naa ni jotaay baa ngi gudd di fàttali rek li ma sëriñ bi gënoon wax ne naa ko fàtt nit ñi mooy fàttaliku li ñu fi indi te bàyyi mu fi na ko sëriñ Saliou Mbacké daa waxee mooy jaamu yàlla suñu borom ndax suñu borom kat bi mu bindee doomu aadama yetta tax mu bind ko alxilaafatu wal ibaadatu wal alxilaafatu mooy wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li yabudun wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi xaliifatan mooy alxilaafa al ibaadatu mooy wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun al imaaratu nag moo andi lépp ci kaw suuf mooy huwa ansha'akum min al ardi wastamarakum fiihaa Sëriñ Tuubaa nag waxoon na Sëriñ Mbàkke Buso ne ko yow Mbàkke Buso yaa ngi nii li la sa borom digal bi ci sa kanam li la sa borom tere nii ci sa ginnaaw mboolem li ngay te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkk guddi bëccëg te loolu mënoo koo ñàkk loolaa ngi ci sa kanam mu ngi ci sa mu ngi ci sa mu ngi ci sa kanam waxtu wala ñokk jëm ci la sa borom digal mboolem li bëgg te di ko wut te ko fexe te di ko sàkk guddi bëccëg loolal nee na mutu naa geesoo ñoo bokk fu jëm mboolem li ngay bañ nag te di ko ragal ko wattan guddi bëccëg loola nee na mutu naa geesoo bokkuñ fu jëm waxtu wala ñokk jëm ci la sa borom tere mboolem li ngay bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkku te bëccëg loola nga ne mutuma ak joosoo bokkuñ fu jëm ko ragal te di ko wattandu guddi ñoo bokk fu jëm mas naa wax ne yàlla suñu borom dafa bind ay ndigalam lënkale ko ak mbëggam bind ay teram lënkale ko ak meram jël mbóotam def ko ci jaam bu ko sob ba tax na fu ngeen fi fu ngeen fi gisee te waaye teral leen ko te bu leen ko tànn biir Sëriñ Tuubaa wax ne Sëriñ Tuubaa wax ne doo leen bari teggin ndax bu teggin jóge gudd fan ne ko doomu fi bàyyi ajjana ne ko mo teeru leen dara leen doo leen mooy safaan ba ndax bu jóge gàtt fan ne ko dooma fi bàyyi saware ne ko ma teeru leen leen deelal mooy ak tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye koy fayu du ñoom deelal mooy seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te yàlla réer seytaane lay womat ku mu womat mooy wax bakkan ndax ku waxe bakkan ji tontoole bakkan ngeen féewoo te féewoo lu ne xaj na ca deelal mooy fital te jaar ci ngir ma ndax kuy féetal ku nekkat fooy fii ngay mujj kon nag sëriñ bi nee na yi moom dañoo fàttali sax ministère mali waaye sëñ Cheikh ka waxoon na lépp moo si jël seex damay fàtte te màggal gi moom ñëpp posteeru sëriñ Tuubaa lañ te lim na ko jëru ma di ci dellusiwaat waaye sëriñ bi nee na ñu ngi sant ñëpp di sant ñun bokkal sëriñ Tuubaa di sant bokk yëpp waaye di sant taalibu sëriñ Tuubaa yi ndax ñoom kat sopp gi ñu sopp Sëriñ dem nañ ci ba Sëriñ Tuubaa gën a leen seen seen jëmm gën a leen seen alal gën a leen seen lépp sopp googu ñu ko sopp nag rawatina ndaw ñi bëgg nañ ko sopp nañ ko sopp koo xam ne àgg na ci bëggatuñ dara lu ne Sëriñ loola nag nañ xam ne Sëriñ Tuubaa lam liggéeyaloon suñ borom lan lan képp la ci payu ko suñ borom fooy ci diggante liggéey moo tax mu wax ne allahu allahu yansur yansurni wal xalqu tabauni fi lbarri wal bahri do nafin bila darari liggéey bii nag Sëriñ Tuubaa bi mu koy liggéey te ànd ko kenn te kenn dimbalewu ko ci kenn jàppalewu ko ci boo ko sëriñ gaawaan fekkee ca liggéey ba ndax moom dafa bëggoon sëriñ ba mu coom sago mu sëggee si ñorum Sëriñ Tuubaa bi mu agsee sëriñ bi ne seex de nanga nga daal dellu ndax sa yërmande attu nii ma fi dekke nga di ko gis sëñ mut loo daga ba mu dikkee da ko nañ ko ci gën a yéeme diirub lam dafa wax ne yadi li mu wax nin karimin naafian samadin laa li darahimi taati min soretini mësa nekk seen juróomi dërëm wala seen dërëm yi ñu ko daa jox ba fa bàyyi ko lépp mu jaayante ko liggéeyal ko xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba liggéey bépp sotti muy al fulkul masoon mu andi ko ne sëri ca bàngoobu waaye ñëpp ko bokk moolam ku ku dib julli rek Sëriñ Tuubaa tàbbal na la ci biir lii awsilu lasi uridu wan faxe bi yal wara yaa muxliyan an nit faxe ijaalu juuxi ila qawmi saadatana wal takfina yowma jamihil xalqi niirana wa bashir zawil islaami turran bi awbati wa bashir zawil islaami bi ajirin yukun waaye la ci gën a yéeme nag mooy fépp fu muy ñaane la liggéey bee xat-xat danaan bi laa tasabubu nit ñi bu ma sabab lu mu ko sama dellu Sénégal kon Sëriñ Tuubaa la ak Cheikh Ibrahima Fati seere woon nee woon na may gi lu muy rëy rëy bu dëpp wutoon jikko yi ñett yi du ñëw bokki boppam yi buur yi ak boroom xam-xam yi waaye Sëriñ Tuubaa may gi dafa dëpp ak jikko ji kon nag ne ñëpp xam ne Sëriñ suñu borom fay na ko fay ji it ba tukki saa su xëyee dee sotti ko te kenn déggu ci dara moo tax lii xew bu yàggut muy mbas mi ba mu amee ci njaareem muy peste ba ba sëriñ bay jaxate wax ci kàddoom yooyu tubaab yi yónnee ci sëriñ bi ndax ko yow de niñ la xamee wóor nañu boo ci boo ci ñaanee mu mu tàggoog mbas mi dem léegi sëriñ bi ni ko yàlla suñ borom ñu ko féndi waxtu woo nan la dana jeex dana jeex bis tubaab bi xëy ànd ak suñ a coro ne ko dañoo bëgg gën a leeral suñ bi wéer digg fi mu toll dañu agsee fekk sëriñ bi jëm ci jàkk ja tubaab bi tàmbu di leeral di wax wéer digg ni muy faate ni muy rey suñ bi ne dem aynama takunu yudrikum al-mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada tubaab bi ne ko damaa yaakaar ne danga ko war a gën a leeral xëy na dafa dégg bu baax li ngay wax sëriñ bi na ko qul inna al-mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum summa turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaada ba bis sëriñ bi xëy ci njaaram xam le ne suñ borom de xamal na ma ne jàngoor ji mu fi indi woon jeexal na ko moo tax la suñu kilifa gu baax ga sëriñ Saliou Mbacke daa wax ne yaakaar ju tas ñun lu woon ko sëriñ Tuubaa ba Cheikh Mouhamadou Mountakha wootee bu yàggut ci weeru ut wii nawet bi ñëpp jaaxle te ndox moom xam xam ngeen ne kenn mënu koo lijjanti ñër di gi jaaxal na nit ñi ba kenn xamatul foo jëm sëriñ bi ne kat li ñu ci war mooy torox tuub dellu ci suñu borom def def tawassul ci njàngum alxuraan ak xasida yi ba mu ko defee booba tolloo na ci junni kaa par bis yu tegal tey jii wax na ne ci juróom la toll kon loolu nag jàpp naa ne ku mu dellu sam xel ku mu dellu waa xel mbirum Sëriñ Tuubaa loolu ku mu dellu sam xel yaakaar naa mënatoo gis lu dal sam xel boobaa nag summun bukmun hummun fahum laa yarji'uun rek lay doon kon ñu ngi jaale bu baax ñi nga xam ne wàcc na jub liggéey ndax accident yi metti na waaye nag na xam ne ak dund lu mu yàgg-yàgg boo dundee junni atit boo xëyee day jeex te afa in mitta fa humul xaalidun ñi fi des dañ fees kenn xamul da nga fekk ëllëgam dëgg kon ku jub nag amul doog am pëseef ngir màggal si si màggal si biir Sëriñ Tuubaa bi suñ borom moom la coon na nga xam ne sa tuyaa ba àgg na te murid ji kat màggal gi bi ko sëriñ bi wootee seen bakkan ak seen lépp lañ jël tey la ko ci sëñ Tuubaa xam ne lu leen ci mën a fekk rek na leen ko waaye dara du leen ci fekk lu jàmm kon nag fi moo koy jeexale mooy ñu xam ne ramziyatu samaani wal makaani mooy màggalu Tuubaa màggalu Tuubaa mooy suñ bis dëkku Tuubaa it moom lañ am suma sama kilifa gu mag bu baax moom ko wax Sëriñ nag dafa nekk ca njaaram bu ma jugul bokk na ci bis bi woote màggat gi Sëriñ Baye sar xam ngeen fa mu dëkkoon ci njaaram danaa ànd ak yëngu bu rëy rëy fekke sëriñ bi di wax ba mujj kenn dëggatut ñépp jaaxle tàmbalee duróom naat naan moom di la koy sëriñ may ba ëpp di ko wax ci seenum xel sëriñ bi ne leen bàyyi leen ko bu agsee dana wax lu mu ci jublu bu mu agsee sëriñ bi ne ko Babacar am na li nga doon def loo jublu mu ne ko danga bëre bëre ba dàq xare ba daan te bàkkuwoo te ma loolu mënuma ko muñ moo tax may bàkku sëriñ Tuubaa ne ko Babacar danaa bàkku sama dëkk ba ñuy wax Touba ak sama jumaa jama fa def mooy sama bàkkan kon kon nañ xam ne dëkk bii di ak màggal Touba mooy bàkku Serigne Touba te Serigne Touba nag li mu wax na yàlla suñu borom moo ko xamal lépp am na ku ñëw yëkkati addiya ju bari jox ko sëriñ bi na ko tegal ndax lu ñu ko téye ci loxoom Cheikh Abdoulaye mos na ko nekk li fii waaja xalaat sam xelam ne xanaa sama addiya ji ni mu baree sëñ bi da koo da koo gisut sëñ bi gestu wëlbatiku ne ko alam yaalam bi anna Allaah yara xanaa xamoon yàlla gis na ko mu tàmbalee xalaat ci xelam ne xanaa ah lii de kenn mësu koo gis kuy tontum xel sëñ Tuubaa wëlbatikuwaat ne ko allah yaxlu man xalaq mu daal day jóg kon sëñ Tuubaa da tontu am xel ba mu bindee ne mu لغير انتهى بالمنتهى كل ذي سقى وينهو به نهو الشعيد وذو تقى képp ko nar a taxee rek suñu borom dana la jël jëmee la nga dem feneen furul man képp koo xam ne yàlla suñu borom namm na dara ceew ci texe nag daa daa def ci sa xol nga sopp ma juuloo moo tax ba mu bindaate ne falaahi bi fadlillaahi fii lawxihi jara bi xayrin mihaa'in doona makrin wala xawfin naar bi na ko seex li nga wax rek nga loolu de falaahi bi fadlillahi ne ko xanaa dangaa fàtte ne fàtte wax insha allah suñ bi ko xat insha allah kon loolooy mbirum sëñ Tuubaa kon nañ santaar yàlla bu baax te gërëmaat ko ci taw tawfeex jëm ñu defal ba ñu topp ci ginnaaw sëñ Tuubaa te xam ne képp koo xam ne bokk nga ci biiru njabootam xam la woon na ne ci yow ma alastu bi rabbikum ca laa la tànne képp koo xam tànn tànnaa tànnaale woon naa la ca kenn mun laa tee ñëw képp ku ma ci boole wut man itam kenn mun laa tax a dikk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala safayta yaa baaqi hayaati الجنان طيبت عمري أتبتلي الجنان فجأتني في بمثس بما محا أذا عدوي ماكر قد جمها رددت ما قصده إليه وكل من أعانه عليه جمها ماكرا ورد ما أراد له بمن والى وما نال المراد